bu leen ko fàtte di ñaanal xalifa mbay mi fi nekkoon yoroon xilaafa ji bootoon njaboot gi Maodo si bootoon bu leen ko fàtte di ñaanal xalifa mbay mi fi nekkoon yoroon xilaafa ji bootoon njaboot gi Maodo si bootoon bu leen ko fàtte di ñaanal te xam ni mbay ku ko ñaanaloo yàlla defal la ko xéewal gi gay ne moo ruy ay may leen ko faate di ñaanal xalifa may bi bi ne ko yoral xilaafa gi booto jabar gi maw na si booto xalifa bay cheikh ñaanal ko rasululay di ko tàmpeel gi gay demoo ay may ko fàtte di laalal xalifa bay bi bi leen ko yonte la fi ji booto njaboot gi Maodo si booto بخير بينه نيو تاي خليفه بي نگیي jigéen ña fa nekkoon ku ne si ngéem nga ñu gis kay alaxira yu gante ngeen ko fa te di ñaanal xalifa may yi nekkoon yorante la fa di boote njaboot gi Maodo si boote njaboot Rasulullah la nga sañse sax yu soo la nga sañse ki ñun yaram di ko bàkkal alaxira yu gante ko fa dëgg ñaanal xalifa may mi ngi ne ko moo yoroon xilaaf ji bootal njaboot bi Maodo si bootal lay yumal xiyaam bu ñu teere ku lal baranga doo tarde am xalifa tu jaaxle yàlla ji buur bi ko doole ko fa tëdd ñaanal le xalifa may mi nekko mooy yoon xilaafa ji bootal njaboot bi Maodo si bootal دومي كايزخ مندو متيدون خليف مودود متيدون خليف شيخ نيما دويلو وين تدينا والله خلف ميم جنيتون نوران كلاف ديبوتون جبوك مودا سيباكا والله مسلم ويبارومم مسلا فيكي ولا ريم مسلا دوك أمبوكم waxum amul du jikko moo. bu leen ko fàtte di ñaanal. xalifa mbay fi nekk. mu yor xilaafa ji bootam. jabar ji Maodo si bootam. moo tax mënul loo gis am na taalam. bum sol dul ba ne kaareem fonk ci mbay la yam. ndax kat du ma solo. bu leen bëtam du xool dul fi mu jëm man yar bi ci mbay moom laa yéem ku mel ni mbay dootul yomboo. bu leen fa fàtte di ñaanal xale fa mbay. yëkkati yàlla di ko sëfoo tax na du jëfe lu dul yoonoo leen fa fàtte di ñaanal xalifa mel mi nekkoon yoon xilaafa gi booto jaboot yi Maodo si booto lay mësul la jëfe ci biir néegam lu muy rus képp ku di soppeem xam ko ci moom ngir maandoom maam astu moo ko ko seedeel bu ko fàtte di ñaanal bu ni taale ba may ni fi nekkoon ci gerte daata ji góor njaboot gi moo da si baata lay bu daan doxantu ci kaw taaxam te waawan fàq di ko seetaan mu mel ni gan ci seen biiro nat sa jamonoy maye looloo ba muñ ba teg ca inshallah nga xam ni mbay mooy waaj tey di la raw siyaay leen ko leen ko fàtte di ñaanal xalifa mbay fi nekkoon muy yoon la fa di ko sanke ci Sénégal ba ca Congo bala fajar ñépp yëg ko Baye Abdoul Aziz la koy wax leen ko fàtte di ñaanal xale ba may metti nekk mooy yonent laa di bootal njaboot yi moo na si bootal gi ñëw naka noonu te bés gi ñëw naka noonu service bi tam naka noonu Abdul Aziz la koy doxolo bu leen ko fàtte di ñaanal. xalifa may mi fi nekkoon yorante ko to baato. jaboot gi Maodo si baata. lay bokk ma sànq présenté sa àndandoo du ko fàtte ku la gisee di ko laajte. xalifa moo mata doy loo ngeen ko fàtte di ñaanal xalifa may fi nekkoon muy yéen lakk bi bata jabate Maodo si bata bilay bu la masaana may toogaay ba jox la heure ngir toogaay bu heure bi jub si mam bay taxaw na tem ci loolu ngeen ko fàtte di ñaanal sibaata jabar ja Maodo sibaata lan nan ko Aziz diw ñëw naam maa ko joxoon heure bi naam te góor dafay sàmm kàddoom daal di taxaw lu ci looloo. jabar gi Maodo si bokka bilay ku la masaana indi ci moom boo dellu see te àndoog moom mu laaj lu xew ngir maandoom asgor dafay gestu démboo bu leen ko fàtte di ñaanal wallaay xalifa mbay mi fi jabar gi Maodo si bata. lay gor du xam fakk du tiit ba fen du ñàkk sàcc du soppeeku du jàpp bàyyi am na wu leen Seydi Mbay lii la noo bàyyeel. bu leen ko fàtte di ñaanal. Xalifa Mbay mi fi nekkoon. yaa ngi la. la fi ji bota.

ce ne na kenn du ko fàtte ci Sénégal ak li ko wuute ñépp ko seede ci loolu bu leen ko fàtte di ñaanal xalifa mbay mi fi nekkoon yor xilaf di bootal jabati Maodo si bootal moo tax magam yi nii noon jataayam duñ ko rekkee ku du soppeem loo leen wax it mbay mag ñaa ngi nii laaj leen ko. leen ko fàtte di ñaanal. walaay xalifa mbay mi fi nekkoon. mu noon yàq ji boote. jabar bi Maodo si boote. ilaay xale yi juddu ci ginnaaw mbay. gisuñu mbay te mbay lañu doon xale ko ci waxal mooy maamam. yàlla moo ko ko jagle xale yi judd ci ginnaaw mbay suñu waxal mbay maamam bu yàlla moo ko ko jagle xale yi judd ci ginnaaw mbay mbay waxal mooy maamam yàlla moo ko ko jagleel. ala yéen jënd ci gannaaw mbay. ci ñu mbay ñu mbay ka mbay la ñu mbay ne ñu gëm waxal ne maamam. bu yàlla moo ko ko jagleel. lay xale yi juddu ci ginnaaw mbay. mbay ñu mbay te mbay la ñu mbay la ñu ko ci waxal mooy maamam. bu yàlla moo ko ko jagleel. Seexul Xalifa sunu maam booy te dolli jàmm njabootam ni àndandoo di siyaare. bu leen ko fàtte di ñaanal. Xalifa may defe na ko. حبيبتان دبك مولى سباكان أتى وبقى السود ظلم وظلمة فقام بسيف الهم بالحد مجرده من سرين ألين جي من شيخ الحاج مالي رضي الله عنه daa ñëw fekk réew mi lëndëm ne ña daan ubbi lamb mu def leen i élément teg ne ndeysaan bocciwul jaasi ñaw ko xalimaam ci la jël weccee ko ñëw ca jaaseem orienté ci nit ñi ba foo dem mu samp fa Maodo ni moom fa jaahada fiiha bi siyaasati wan nada wa ilmin wa xilmin fahtadaa kulla maatadi ñu ni Sëriñ Aliw mu ni Cheikh El Hadj Malick daa xoolal samp jàkka yi jumaa ngi jàkkaam yaay foo si kër a jàmbaari tool sañ naa taxaw xuy jomb ko tool baa ngi waaram yaa ngi mbay mi rafet na kaa na buur yàlla dolil koy ngërëm ndax yeyoo na ko mba moo tax xoolal fasaarat zawaaya fii quraha jamiiha mi laa am li fawjin raakayna wa sujjadi ñu ni siriñ mu ni te bu ñu jullee ba pare lal mbalaan ma naasiril xaqi bil xaqi ji dal li aswaati في كل يوم وليلة دوي لدى كل سوايا ومسجد moo سيرين بابا كرم كي دال فاو ما دلو ko دال أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرام وسباني قد جفا طيف الكرام بين خفقا خفقا الهرعب لا إن شاني قد يرى هدى قلبي بخير قلبنا قد سرى قد في ضلوعي لوعة نار الجوار فرا هذا قلبي من خير قد طيفك من قد سقاني ما سقاني سرى قلبي لخير قد سرى قد سرى طيف الثرى من عز وسليل مضيف قد سفى قد سما منه وجه من ضياع قد فرى هدى العلا من فينا وسرر سار ثرى نجا قلبي من خلال القصرى رقيقة سرى وصباني قد جفا طيف القرى موضى مالك بل دارك من مالك مالك بل مالكي من شرع هذا قلبي من خير قد سرى قد سرى وسطاني قد طيف الكرى موت وصف كل جاه كل جاه كل جاه المنى وجواد كل من إن قدر هدف قلبي من خير قد سرى قد سرى وسبني قد طيف الكرام